aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu mboolem yéen taalibe bi yëpp ñu nekk senegaal ak ñi nekk Afrique ak ñu nekk Europe réew mi bitim réew fa waaye man leen nekk te taalibe bi ñu ngi lay sant di la gërëm ci seen i taxawaay ak seen pasteef moom laa yóbbante géej mi ci yéen taxawaay yi rafet na pastéef yi rafet na te xam nañ ne jëmm yee teewut ndax yi xew waaye xol yëpp teew na seeni loxo teew na fi na ngi leen ñaan yàlla boole na fi yàggal defal nuy xéewal yokk sutura yi ba buñ ko fekkee te nu man koo defee nin ko bëggee nin ko bëggee nu mën nu ko raw suñu xol sedd na ci yéen taxawaay rafet na seeni loxo ñëw na seeni xol ñëw na liggéey bi nag ñu ngi koy defal sëñ bi ni mu ko bëggoon ñoo ngi def bëggu sëñ Tuubaa Seex Ibra daal ni ñaan ñoom it lii sunu bëgg ñu defal na ko te sunu bëgg bañ leen a génn nañ seet li gën ci ñun ñu bëggal na ko ba noppi defal na ko sant nañ bu baax gërëm leen di ñaan gàllankoor yeeg xat-xat yeeg yëpp yàlla dindi ko li xat na ko yàlla yaatal ci barke wa saxta taw si atan bi ifqi yàlla yiñ tëj na ko yàlla tëj ci barke xat fa ci barke waftan la ko lu baabin ko do faatoo lisaani min xayraati yàlla yoon yat ci dugg ci wasluk bi naan xajarus dinu sina sallalan wartulaa jine wa seytaan yàlla yiñ yiñ kànnaar tëj ko yëpp na daa jóg ci xadda fàkka kabla xadda baasa falla fa doru wàlla woon fu jaay welis ci boppam na ko suñ tubaak seex def ci wëli sànni ko ca géej yu sari hmm. waaw corona bi bu ñu ne corona na na corona génn réew mi waaw eh, ñun yàlla jàppale defoon na ci xew jaajëf lan 19 li ñu tudd li ci def covid 19 covid 19 moom it adadu ah, sabaani yi malaaka yi pirowat yi ne àlaxira 19 la ñu nañ duma ñoo ñu génn réew mi nañ duma covid 19 piroot dix dix neuf piroot yi nga xam ne ñooy tënku bisimilahi rahmaani rahim boo ci génnee liif gu aj gi ci kaw mm. ba siin mi mara liif laam laam alsaqir liif laam ra alonk miim noonu nara liif laam ra alonk yaa mi mara dix neuf la mm-hmm. nee ñu mooy tax piroot ya ca sawara duñ la duma te ñooy mooy lim ba yor ba ñooy ñooy biir gaatu piroot ba ne sawara daal di di buugalee ko duma mm. piroot dix boobu nag na duma dix bi mu génn réew jërë ngeen jëf. Hmm,